waaye ma ñëw si tournée Amadou Ba bi Amadou Ba tournée Amadou Ba bi nga xamante ni mi ngi dugg profité ne rek campagne noonu voilà gis nañ tamit nit ñi nga xamante ne mu ngi leen di loué hmm? di leen yóbbu fu mu dem ngir lan ngir jéem a masque sonkorisé bi parce que moo leen ñoo ñoom ñoo gën a xam ne <clears throat> fen dugg si Sénégal da leen di sonkorisé te loolu mosoo am ah. parce que yéen a Sonko looloo tax ngeen jukki xaalis ba bëree bëri bëri bëri yëpp ay kaar bu mu fees pour empêcher ñuy yóoxu leen <laughs> wallaay wallaay yéen ngeen nax seen bopp te mënu leen ñoo tere synchronisé mënu leen ñoo tere synchronisé de foo dugg senegal ni la dégg naa démb xama barki démb Ross Béthio yóoxu nañ la fa ndax tamit yóoxu nañ la fa ngeen préparé wu dem uti nit ñi bëri pour en cas ba leen synchronisé du feeñ waaye léegi teewul de teewul de ma ne yow Amadou Ba 15 pour cent doo ko am si élection yi wallaay azim bu jaaree yoon 15 pour cent doo ko am kon bu leen xalaati gañe waaw fu mu nekk ni réew mi moo leen wan ginnaaw carrément total te mu leen a xam loolu waaw loolu moom sawaay euh, da ngeen di sonal seen bopp rek te wallaay dina leen sonkoriser ñu ngi leen di xaar dakaar ñun waa Dakaaru Ndiaye ñu ngi leen di xaar dinañ leen sonkorisé ba ngeen tiit waaw gox yëpp nag incha allah dinañ leen sonkorisé bu baax a baax a baax a baax wane na nit ñi ñoo doyal si yéen yéen Benno Bokk Yaakaar fii laa jógee tas ba abadan ilaa yawmi diin parce que da ngeen yàq dëkk bi waaw yàq justice bi léegi justice sax amatul dogal amatul dogal justice amatul dogal si dara dañ koy dicté léegi lan moo ko andi benn group ñu naan Benno Bokk Yaakaar ah waaye nag quatre mois yomb naa muñ bëriwul te billaahi jeex na ñu nag yéen jeex na barke alxuraan jeex na takk soobu suñu borom boobu buñ si jógee nag ku si nekk dinañ la topp ku si nekk dinañ la topp si seen nguur la dee yu bëri manifestation dee yu bëri nii mosoo am te manifester rek la nag waaw bu ñu waxee ñu naan yàq yi fi jàmbur waaw bi yàq yi fi jàmbur wala yàq yi fi def loolu est-ce que rey mooy moom mooy fay bi rey ndikk mooy fay bi mais <laughs> jàppale nit ñi bu leen mel ne jàpp ngeen tëj leen hmm? mais comme te jeex nañu ñu nag yéen jeex na 4 mois bëriwul alhamdulilah du ma ñëw sax naa si Sonko lay bokk wala du bokk loolu moom mu ngi suñu euh, euh, euh, nen nen def élection ak jàmm rek voilà loolu wax ja yàqu